buur bi fi ñëw wax leen ni que ni kat jaaduwul ngeen koy def ñu interdire lan moo waral loolu interdiction boobu lan mooy cause bi. bon mbooloo mi asalaamaaleykum euh, ñun defuñu woon mi meeting dañ ñëw pour waxtaan ak jeune dëkk bi par rapport li am ci biir dëkk bi parce que dëkk bi dem na ba nga xamante ne amul dara. waaw comme demee na noonu ñoom lan moo waral ñu ñëw interdire leen. bon ñëw nañu ñu ne ne préfet moo woote pour ñu ne ñu ne kenn amul droit def dara ci mbedd bi. donc kon est-ce que jaar ngeen fi ngeen waroon a jaar ba tax préfet wax loolu. bon jaar nañu fi ñu war jaar parce que joxe nañ suñu këyit joxe nañ suñu këyit yëpp. donc kon cause bi lan lay doon préfet lan moo waral mu jékki-jékki rek xañ leen loolu li nga xam ne non nee na waa Pire ñooy meeting te man mi taxaw yéen man du ma waa Pire moment du moment meeting du mooy wax.

parce que dëkk bi boo xoolee dix-neuf quartiers ñaari ASC amul terrain football amul marché amul dispensaire amul dara te dëkk bi 1948 la ba léegi dara amu fi ñun nag du ñu taxaw tey du ñu arrêté suñu combat dañ koy xeex dañuy xeex parce que ñun ndawalu dëkk bi lañu ci dëkk bi lañu juddoo ci dëkk bi lañu màggee xam nañ liy daw ci dëkk bi képp koo xamante ne yaa ngi juddoo ci dëkk bi te xeexoo ngir dëkk bi. defe yaa nga man Idi Sow maa ko wax képp koo xamante ne yaa ngi si biir dëkk bi te xeexoo ngir dëkk bi man soxlawuma xaalis soxlawuma alal soxla soxlawuma si dara damaa soxla lii li li nga xamante ne moom la alaaji Paate yellool ñu am ko parce que boo leen gisee tey ay ay oto di ñu transporté oto yoo xamante ne dañoo war a yeb bagage oto yoo xamante ne dañoo war a yeb ay xar di yeb ay nit loolu kenn mëntu ko nangu te fii ci alaaji Paate rek la des te alaaji rek la des

ngir dëkk bi ay ñaari nit ñett nit di ma wuyu si ñu dem ba nga xamante ne ay mbooloo mbooloo ñooy dem ñëw di wuyu si kon nag man sama xol sedd na te combat bi nu arrêté tey dañ koy xeex ba mu jeex taj poste de santé